muy euh, jongante mbindum alxuraanul karim jongante yi am ci wàllu alxuraan bari na yëpp am solo yëpp du am njëriñ waaye bii dafa nekkoon boo xam ne xëy na amagu fi woon kon ak ak ak ndoortale doon euh, compagnie bi nga xam ne mooy euh, C3S Serigne Seck ak ñi nga xam ne ñoom la àndal taxawal ko jàppalante ci ak mbokki daara yi doomi daara yi sëriñ daara yi ak dong daara yi. ndax concours lu am am solo ñi koy valoriser mooy ñi nga xam ne ñooy def jëf ji euh, concours bu nekk mi nga amee solo ci ñi nga xam ne ñoo wuy si euh, muy participants yi kon loolu lu am solo la yàlla dogal nag euh, concours bi li ko tax a jóg weesuwul dundalaat mbindum alxuraan ku ne xam na ne fii ci réew mi di Sénégal yàlla dogal na naka jekk alxuraanul karim mm, dafay am cër dafay am wàccuwaay bu rëy rëy bu mag. boo xam ne eh, eh, mag ñi ñu jiitu woon yàlla na yàlla yokk seen laar yokk seen gërëm ca fay leen yiw yu ñu doon liggéey ba bàyyil ñu fi téere bi dañ ci daan liggéey ci alxuraan liggéey yu am solo lu ko jiitu it naka jekk alxuraan dafa yàgg ànd ak mbind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne alxuraan mi ngi wàcc su ma saan wàcc daf ko daan bindloo daf daan wut ay nit ñoo xam ne loolu lañ féete woon ci moom Euh, muy ay secrétaire particulier yoo xam ne bind alxuraan moo leen tax a ku ne xam na ne alxuraan jot na bakkan maanaam bind bind solo bind boog bind ci boppam jot na bakkan jot na ay bakkan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne eh, ñi jàppoon ci xare bi ñu ay yéefar eh, waxoon na leen ne ku mën a ku nekk ci yéen jàngal fukki doomi jullit ñi ñu fer iji mu nekk seen jot loolu kon di wane am solo bind kon dafa yàgg ànd ak ak ak lislaam eh, sunu mag ñi ne liggéeyoon ci liggéey yu rëy yoo xam ne xëy na ci bari nañ ñoo xam ne bu ñu ma sànd jàng njàng ma du du du nekk njàng mu mu rafet ànd ak maxaaribul xuruf ba ànd ak ahkaam yi war ci tajwid ahkaam yi war ci dawaabit yi riwaayati warsh bu dee moom lañ ëppoon ci moom lañ jàng euh, dawuñ sàmmante ak moom xëy na ngir ñàkk xam ci ñu bari ci ñoom ñu bari ci ñoom du ñëpp nag ñu bari xamoon nañ ko waaye ñi ko xamul woon teewul bu ñu ma sànni bind moom waaye riwaayatu warsh waaye max da leen daan bind bu rafet boo xam ne ku nekk xam na ko kon dafa yàgg am waay mu demoon nag ba tàmbali fër maanaam ba tàmbali réer daara yu bari euh, waajur yi yàkkamti guñ yàkkamti xale yi ñenn ci sëñ daara yi gis na bind sax amatul solo kaamil yi bari na amatul solo amatul benn wàccuwaay bi ba mu tàmbali wàññi ko lii nag bokk ci li nga xam ne encouragé ñi ci nekkoon doon ci góor góorgóorlu naka jekk waaye di soññi ak di euh, won ñi nga xam ne nekkoon ci woon am solo goo xam ne mbind mi nekk na ci. Hmm, bi ñu euh, lancé ñu en tant que ñoo xam ne dañoo bokk ci communication bi nga xamee ne yàlla dogal na ñu tasaare ci réew mépp ay yëgle yoo xam ne da doon wane euh, mbind mi ndortali ak ak bindu gi ñu bëgg ko ci bindu goxi réew mi yëpp région yëpp quatorze régions yëpp bokk nañ ci bam mu des benn rek muy Kolda rek lañ amul candidat ñu amoon euh, huit de huit cent cinquante candidats yooyu bi ñu dajee dañoo tànn ci ñoom maanaam nu wax prestation tànn ñi gën a dëppoog li ñuy sàkku ci wow mbind ci rafet ci mokkal gi ci euh, dëppoog euh, rasmul osmaan yi bi yàlla dogalee ñu def loolu am ci soixante quinze personnes yoo xam ne moom lañ tànn muy juróom-ñaar fukk ak juróom juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag euh, am na ci ñaar ñoo xam ne ñëwuñ tey waaye soixante treize yi des yëpp ñoom ñëw nañu ñëw nañu tey bokk si yaay góor ak ay jigéen ku nekk si ñoom roman la doon bind ku nekk si ñoom roman la la la doon bind roman nag boo ko xaajee euh, maanaam deux cent quarante roman moo am ci kaamil bi cent quarante ñu jox la ci benn kon na la bind ko bi ñu bind kum doon si ñoom ñoo bokk waxtu wuñ tàmbalee ñu jox leen limité leen trois heures de temps yoo xam ne moom la ñu war a def ñoom ñëpp ku ne si ñoom sàmmonte ak ak trois heures temps yooyu am ñoo xam ne ba mu daan jege sax euh, àgg nañ bu yàgg. ñu bind mbind yu rafet yu yéeme yu am solo wax di yàlla waaye euh, ci maanute tax na ba dugaluñ ay tur ay arqam sirriya lañ am maanaam ay ay code numéro yoo xam ne ay cote lay doon yoo xam ne buñ nee ci misaal alxaaji Njaay laa tudd duñ bind sama tur ndax mu bañ a influencer kenn donte xam nañ ni ñi bokk ci lañu tax kii mi wees nañ loolu waaye nag ngir mu gën a set gën a jaar yoon rek numéro bi ci boppam la sukkandiku nga xam ne la ñuy ñu xam ne numéro ba la ñuy corrigé bu ñu corrigé ba noppi la tax kim bi bu ñëwee jox ko ñi nga xam ne ñoo ñoo doon coordonné liggéey bi ñu doog delluwaat ci euh, ci euh, registre bi ci machine yi xoolaat numéro 15 ci misaal kan la ñu ne diw numéro 13 ñu ne ku toll ñu diw numéro 22 ku ñu ne diw muy nga xam ne ñoo génn boobaa ci loolu la sukkandiku pour joxe résultat yi wane na ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo admis juróomi laaj na ñooy lañ tax kim maanaam juróomi équipe lañ. muy fukki nit ak juróom ñett ñu ne bokk benn équipe ñooy tiimandoo roman ji di ay kàngam yoo xam ne kenn ku nekk doyoon na ci waaye ñooy tiimandoo roman ji toppandoo ko xoolandoo ko ba gis ci yi nga xam ne moom moo ci des ñu wàññi ko ci point yi nga xam ne moom la candidat bi amoon set yi ca génn nag incha allah taala am na ay neexal yu am solo yu ñu leen waajal ki jiitu deux millions cinq cent la ki ci tegee euh, maanaam euh, deuxième euh, deux millions la troisième un million cinq cent quatrième un million euh, cinquième euh, euh, nekk cinq cent mille ñu tànnaat ñeneen ñaar ñoo xam ne dañ cay dañ cay bokkaat mu juróom juróom-ñaar juróom-ñaar ñoo ñaar nga des kenn ki deux cent cinquante mille lay am bi septième bi cent vingt cinq mille loolu di lu am solo loo xam ne ci bind roman rek ci ab ab diggante dana dana soññi ñi nga xam ne dawuñ bind dana soññi waat gën a góorgóorloo ñi nga xam ne ñoo doon bind ci yaakaar nañ ne bu déwénee incha allah taala dana gën a am solo kon ñoo ngi sant bu baax ak di ñaanal mbokk mi ko taxawal muy Serigne sekk ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi ndaw ndaw ñi fi nekk ñëpp boo leen gisee da nga xam ne am nañ ay motivation interne am na yu leen leen di jañ mooy ngëm-ngëm ak pas-pas ak xam ne lii am na solo am na njëriñ loolu nag ñun ci doon liggéey yëpp yàlla yàlla rek tax yàlla na borom bi subhanahu wa taala fayal ñu ñun ñëpp